li ëpp ci li état di def investissement mi koy def Dakar Thiès pratiquement déglu leen rek Dakar moo région de Thiès touti, ak région de Diourbel touti. Et pourtant ku fi que pouvoir rek ñetti ni région yi ñoo voté contre toi ku fi daanu perte nga Dakar perte nga Djourbel, perte nga Thiès mais les léeg qui seetloo kii daanu surtout premier tour day gagné Sédhiou day gagné Kolda day gagné Tamba région yi ñu gën a ci Sénégal loolu nag moo tax ñu bëri dañoo jàpp ni ci région yooyu dafa mel ni li tubaab naan seeni bureau mooy ñi leen toroxal dafa mel ni ñoo ju leen toroxal nag bu ñu xaaree fàtte leen pendant sept ba élection jege si ñu débarqué nag you've been to ay then you want to lampe